jërë ngeen jëf mbokk yi ñu leen a nuyu di leen ziar baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ñun fii ci Paradise TV su ko defee ngeen taaxir lu ñu tuuti nag ñu indi leen lépp loo xamante ne rek dafa jëm ci wàllu xibaari wolof yi fii ci Paradise TV noonu la noo def nag tàmbale ak yéen suñu xibaar bu njëkk bi gannaaw bi nga xamante ne nag fukki fan ak ñeneent ci weeru novembre leen jagleel nag ci àdduna si ngir ñu màggal nag wala gestu wàlla li nga xamante ne moom mooy feebari diabetes ci biir loolu nag ci wàllu deret ak itamit seet sukar bi nga xamante ne Ah, moom mooy ci doomi aadama yi daal di nañ ko amal nag niki ci samedi bi ah, maanaam li leen dikkee wu dara ci wàllu koppar foofu noonu ci Westfield lu toll nag ci ay téeméeri téeméeri doomi aadama kon ñëwoon nañ foofale ah, ngir saytu seen wér-gu-yaram ci wàllu diabetes ñu ànd ak xibaar boobu te dellusiwaat Gambia di dëkk bu ndaw nekk ci tund West Africa wax nañ ne ci alal boo xamante ne ni mu ngi koy jëfandikoo at bu nekk lu toll ci 3.6 percent euh, dinañ ko daal di dugal ci fajam lii di jabet ñu ne nag ci atum 2017 lu toll ci fukki junni ak ñeent ak ñeenti téeméer. lolu lañ xayma si ñu am diabetes fii si biir réew mi te boo xoolee aduna ngiwal ngër képp lu toll si ñenti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi millions doomi aadama ñoo am lii di diabète si aduna wër ngër képp novembre 14 nag nekk na bés boo xamante ne eh, tegee nañ ko boor pour eh, celebrate lii di World Diabetes Day si week long celebration bi nag gis nañ ñii di youth empowerment through educational sports moom mbootaay boo xamante nii nag si euh, samedi bi foofu sa Westfield amoon nañ exercice boo xamante ñu ngi ko fa doon def euh, dañ doon euh, on yi pour ñu test seen deret ak ak sukkur yaram foofu noonu si biir Westfield bu moon waxtaan ak Paradise TV kii di Amadou bi jaaloo di coordinateur bi moom nag lii la am pour wax. kii di Papa moom nag moom mooy founder association bi di YES moom tamit kàddu yi la am pour gaaral askan gi Yunusa Kan moom nag nekk na koo xamante ni daf loon romba rek gis mbootaay bi taxaw di def lu am solo lii jaar na test deretam ak sukkari yaramam bi ba pare waxtaan ak Paradise TV wax na ne nag lii mooy ñeneenteelu yoon boo xamante ne nii association bi mu ngi ñëw di def lu mel nii li yëpp lu ko waral mooy euh, xar seen tànki tubéy bokk ak àdduna wërngël képp pour xeex lii di feebari jabet pour ñu mun koo dàqalu fii si biir réew mi Babacar Sy Paradise TV News su ko defee ba tey ñu seeti leen beneen xibaar gannaaw bi nga xamante ne nii ah, cultural festival ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo ko taxawal di home base ak tamit national arts and ah, culture gannaaw bi nga xamante ne nii daal wax nañ ne ndaje bi dinañ ko daal di amal ngir gëstu lépp loo xamante ne rek dafa jëm ci wàllu aada ak cosaani réew mi lii nag ñu ne dañ ko daal di def ngir gis ne daal aada ak cosaan bi dekkilaat nañ ko beneen yoon. benn fani ndaje bi nag ñu ngi ko def ngir yeesalaat lii di aada ak cosaan fii si biir réew mi ak naka la aada di ñu mun a njëriñee euh, am solo bu mu am si biir réew mi fii euh, boole kook technologie bu mu doon gaaral kàddoom nag kii di Xaasum Cissé nekk foofu noonu si National Center for Arts and Culture moom nag wax na ne dekk li aada ak cosaan war naa nekk mbébéti bépp doomu réew boo xamante ne nii mi ngi si biir réew mi ko xamane ni teewoon na si ndaje bi di mumudu Sabali mom nak di kat gara na fa ay yu am solo uh, baye ko ci tarikh yo xamanteni ni uh, xewon na fi si jamono mamia ya di Oku drame ko xamanteni ni ndanan la ci walu musique mo tamit gara na fa ay kàddu yu am solo uh, demale ko dekali dekali ciosan fi ci bir rewmi biir réew ak Paradise TV ki di Lamine Kinte nak moy chia passé ni home based organization mom nak wax nañu sen bi organisation lu len taxajuk aada cosaan nekk na lu am solo si réew mu ne sakkatuma fii si Afrique euh, te ñu bëri wax nañ ne sax ne dëkkam munta dem bàyyi gannaaw lii di aadam ak cosaanam looloo tax mbootaay bi euh, ñëw pour dekkaliwaat aada cosaan boo xamante ne nii dafa mel ni réew mi mu ngi koy bàyyi gannaaw Baboucar Sy Paradise TV News ba tey si réewu Nigeria lañ leen di demal gannaaw bi nga xamante ne nii daal wax nañ ne euh, seen euh, li nga xamante ne moom mooy armée bi maanaam euh, seen way takk der yi maanaam seen soldaar yi jàpp nañ daal rey nañ kenn koo xamante ne nii daal nekk na borom nomba tànk tey itam kun ràññaale foofu noonu ci fi nga xamante ne moom mooy ci bokk Haram. si bataaxal ah, bu bàyyeekoo si soldaar ñoom daal wax nañ ne ah, faat nañ ñu bëri ah, si liggéey boo xam ne nag air forces ñoom ñoo lëkkaloo pour gis ne ñu def lii ñu ne lii nag li ko waral sam mooy dañ jóg rek pour gis ne ñu jeexal loo xam ne nag mbir yu bon yoo xam ne nag ñu ngi def foofu ñu ñu ooyee ko terrorisme waaye nag waxuñ kañ lañ def lii wala fan la am waaye na soldaar ñoom wax nañ ne dinañ continuer di daan ko ñoo xam ne nag Ah, ñoom ñooy ah, def yu bon yi ah, surtout ñoo xam ne nag ñoom ay kilifa lañ si Boko Haram ñu ne nag soo seetee liñ ree benn njiit si ñi wone na ne mooy soldaar yi ñu ngi def kéemtalaay kattan mu gis ne ñu jeexal ñii di kilifa yoo xam ne ñoom ñoo amee lii di Boko Haram waaye nag ñu ne baax na pour ñu leeral ne lii mooy groupe bi mooy Boko Haram ñoom nag si benn groupe lañ bokka bi ñu ooyee Islamic State te nag nag def nañ tafaar yu bëri ah, si biir réew mi moo sax di rey ay soldaar wala sax di ay ay ay doomi yoo xam ne nag ah, defuñ dara waaye soldaar yi ah, si bataaxal bi wax nañ ne am nañ beneen xibaar buy wane ne dafa am beneen banxaas boo xam ne nag moom mu génn ca Boko Haram te nag banxaas bi ñu ngi ko ooyee jamaatul nusratul islami wal islam wal muslimina te nag wax nañ ne ci jamono bi sax tànn nañ koo xam ne moo leen war a xibaar bi nag mu ngi mu ngi génn gannaaw benn bés bu ay boo xam ne ah, kii xam ne moo nekkoon njiit boo xam ne ñëpp ràññee nañ ko si Boko Haram ah, bi mu feeñatee ñu xam ko si Aboubacar ah, Sekaw ba tey ci réewu Madagascar ñoom nag dinañ am seen ñaareeli élection euh, maanaam sànni carte yoo xamante ne ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ak juróom ñeneent euh, ba gannaaw bi nga xamante ne nii daal ñaar ñu nekkoon euh, njiiti réew foofu noonu ci Madagascar ñoom ñoo see jongante ñu gën leen a xamee ci André Rajoelina ak Marc Ravalomanana gannaaw bi nga xamante ne ni daal amuñ nag vote yi soxloon daal pour daal mun a falu maanaam si donkaasi réew googee kenn si ñoom eh, amut eh, mooy eh, soo si téeméer bi juróom fukka kenn amu ko si ñoo xam ne ñoom ñoo taxaw si sànnum karta bi lii mooy waral pour ñu gagné kii di rajo lii na koo xam ne nag moom moo jiitoogum am na lii si soo ko xaymaay si téeméer fanweer ak juróom te nag kii di Ravolo Manana koo xam ne nag moom moo nekk si ñaareelu place bi moom si téeméer bi soo ko xayma am na fanweer ak juróom ak lu tegu lii xibaar bi mu bàyyi ko si ñi amee numkata si réew mi ah, keneen si ñoom koo xam ne nag moom mus naa nekk ah, njiit ah, si réew mooma te moom mooy président bi si jamono bi war a ño xam ko si Rajaaw Nari Mampia Nina moom nag moom moo nekk si ñetteeli place ba te lim am si téeméer bu ne moom am na fa juróom ñett ak lu tegu ñii nag ñetti nit ñoo xam ne ñoom ñoo jiitoongum si sànnum karta gi soo ko xaymaaye fanweer ak juróom benn ñoom ñoo taxawoon waaye nag ñetta yi nag ñoom nañ mbootaay bi amee wàllum élection bi ne njublan ah, moo fa ah, daw ah, kii nag mooy nag mbootaay bi nag ñoom wax nañ ne ne xibaar boo xam ne nag dinañ ko war a génne si jamono bii daal dina ànd ak lii di luwaa ngir soo seetee ñu ne am na kéet yu bari xam ne nag bind nañ ko a yóbbu ko si néegu luwaa maanaam ni ñoo xam ne ñoom ñoo taxaw pour nekk ay président ñoom ñoo binda ci néegu néegi luwaay fi ñooy dogale te nag lii dina indi mbir bo xam ne nag dina indi jaxasoo trop si réew mooma parce que soo réew moo xam ne miin na ah, di jànkuwanteel ay fitna ayu demee ni ah, depuis bi mu amee indépendance si France si atum 1960. ci réewu Democratic Republic of Congo ñam nag lu toll ci juróom-ñaari UN peacekeepers dinañ leen dijal gannaaw bi nga xamante ne nii daal rey nañ leen gannaaw nag biñ jaamaarloo ak way fippu yi UND wax nañ ne ah, ñoo xam ne nag ñoom si ñoo si ñàkk seen i bakkan ah, ñi ah, bokk na si juróom-benni nit ñoo xam ne nag ñoom ñooy dem si dëkkay pour gis jàmm am foofu ñoo xam ne si peacekeepers ñu bàyyi ko Malawi kenn ki mu ngi bàyyi ko Tanzania ak kii wax si làmmiñu UN bi di du Dujarric moom daal wax na keroog ca ajuma bi fële ca New York ne ay yeneen fukki ndaw yoo xam ne nag gaañ lañ leen te kenn ko xam ne nag ñoom bente gisuñ ko waaye wax na ne bari na si. ay ñoo xam ne nag ndaw yu bàyyeekoo Congo ñu rey lañ leen wala ñu gaañ leen si ay liggéey yoo xam ne nag ñu ngi ko def fële ca ah, Beni ah, Beni nag ah, foofu la lii yëpp xew waaye nag ñu dikkee si boor booba ñoom nag ñu ngi ñaan lii di kilifa yi li ñu wax rek mooy ñu ne bugga nañ lii di kilifa ñu jàppale leen surtout ñoo xam ne nag ñoom ñooy ñoom ñooy borom ndombal tànka yi ñu ne nag li ñu wax rek mooy dañ bugga nag ndax pour ñoom tam ñu dëkk seen kër yi kii xam ne nag ndaw la bàyyi ko fële ci réew mooma mooy benni ñu xam ko si Taipa at Songa moom daal wax na ne ñoom si jamono bi ñu ngi seen i kër de waaye nag benn tey ay réfugié lañ ah, soo seetee mu ne ah, xam ne nag ah, ñi mbir moo xam ne ni ñàkk na seen i bakkan lii nekk na mbir moo xam ne nag moo gën a rëyle wala sa li ñàkk si ay ay li ñàkk si ay doomi aadama si xeex boo xam ne nag ñu ngi ko def fële ci DRC mooy Democratic Republic of Congo soo seetee ñu ne lii nag mu ngi géej depuis. juróom euh, depuis fukki nit ak juróomi nit euh, ñàkk nañ seen bakkan si euh, réew bi mooy Democratic Republic of Congo si benn at si ginnaaw. su ko defee mbokkee ngeen taaxi lu ñu tuuti ñu ànd ak yéen si xibaar yi jënd ak jaay. mbokk ci xibaar xibaari jënd ak jaay dinañ dem ba ci France benn nit nag euh, daal dina faatu ak téeméeri doomi aadama daal di am ay gaañu gaañu gannaaw bi nga xamante ne ni daal ci réewu France ñun doon ñaxtu gannaaw bi nga xamante ne nag président bi di euh, Macron moom daal daal dina jël ab dogal pour yokk nag naamo yi nga xamante ne moom la doomi réew mi France war a fay. ñoo xam ne ñoom ñoo génn si suba bi ah, di wane seen i naxaar ah, si ah, biir réew mi yëpp kenn si ñoom de ñàkk na bakkanam si place bi ñu ooyee Ponde bo Viosen lii nag mu ngi si région bi ñu ooyee Savoie lii nag ki ko wax mooy kii di Louis Lagoue moom daa wax na ne ab borom moto boo xam ne nag doomam la doon yóbbu si doctoram bi si la la ñii di ñu génnoon si yoon bi di di wane seen naxar si lañ ko taxaw si yoon bi wana nag si loola Euh, si la daw rek euh, moto bi euh, daanu si kaw koo xam ne nag jigéen la ko xam ne juróom benn fukki at ak ñett la am si loolu sànne ñi ñoo xam ne nag ñoom ñoo génn di wane seen i naxaat si yoon bi si lañ commencé di dóor motoom bi mu ngi mel ni daal si ab tiitlu si la kii di jigéen bi taal motoom bi rek si loolu sade si la daanu si kaw keneen tam te kooku tam mu mu ñàkk bakkanam si jamono bi nag moom borom moto bi téye nañ ko waaye nag si biir France su tollu si téeméer ak juróom-benn nit ah, si jamono bi ah, gaañu nañ am na juróom ñoo xam ne nag ñoom seen gaañu ah, am na seen gaañu bi daal métti na lool fële sa aras am na ko xam ne nag ji góor boo xam ne nag juróom-ñaar fukk ak benn la am si at si ay at moom tam moto tampon na ko te si loolu sax de gaañu na gaañu am solo police yi nag wax nañ ne lii di accident yu bari li koy waral rek mooy mooy borom moto yi su ñi xam ne nag ah, ñoom ñoo nekk si kaw yoon bi ah, suñ leen ah, suñ taxawee seen kanam te driver yi di jéema a rëcca loolu moo tax sade façon accident yi muy am léegi-léegi ñu dellusiwaat ak yéen ci xibaaru tàggat yaram your smile. Take it with you, wherever you go. Wear it. Share it. To welcome old friends or meet new ones. Brussels Airlines, we go the extra smile. Monday at 9.30 p.m. only on Paradise TV. BBC tànn nañ juróomi ndaw ñoo xamante ne daal jàpp nañ ne ñoom ñoo gën a def jaloore euh, ci doomi Afrika ki ñu ci njëkk a tànn mooy Methi Benatia nekk doomi réewi Morocco Kalilou Koulibaly ak Sadio Mané nekk waa Sénégal euh, Thomas Partey nekk waa Ghana Mohamed Salah euh, nekk waa Égypte ñoom lañ tànn ne daal bokk nañ si ñuy jongante ñu gën a xareñ ci BBC African Player of the Year. xibaar bi nag ah, dinañ ko jàllale ah, lii di ah, BBC World Service si ajuma bi fukki fan ak ñeent si weeri décembre nit ñoo xam ne nag lañ tànn pour ñuy jongante ñi ko def nag mooy nit ñu xarañ ci wàllum football fii Africa kii di ndaw yi Liverpool moom moom daal a moo gañe woon di award uh, bi uh, daaw di uh, Mohamed Salah maa ngi ñi jotoon a gagné lii bokk na si J.J. Okocha Michael Essien Didier Drogba Yaya Touré ak Riyad Mahrez kii di ndaw loo xam ne nag moom Juventus lay jonganteel ñu xam ko si Benfica moom nag ñeneenteelu yoon mu gañe gagné lii di league title bi si club yum nekk gagné woon na ñaar ak Bayern Munich mu ñëw gagné ñaar ak Juventus te sax moom moo nekkoon capitaine Morocco si World Cup bu passé bi kii defender na li ñu xam ko si Koulibaly kooku nag euh, nekk na loo xam ne nag moom jongante woon na sade euh, bi euh, tiimam bi di xëccoo ak Juventus ne kan mooy gagné lii di Serie A title bi. te moom nekk na ko xam ne nag playal na Sénégal si match si yëpp yoo xam ne def nañ ko si World Cup bu passé bii ak naataangoo mi ko xam ne moom Liverpool lay jonganteel Sadio Mané moom tam playal na Sénégal match si yëpp yoo xam ne def nañ ko si World Cup bi te sax ñaari yoon moom moo daan nekk capitaine yi muy Sénégal dugal na uh, lii di benn góol uh, gannaaw bi Sénégal doon jongante ak uh, ñii di Japan te soo seetee moom sax moom bokk na si ñi gën dugal góol si Champions League bu passé bii nii ak fukki góol pour Liverpool bokk na si sade benn góol boo xam ne nag moom score woon na ko si final bi ganaaw bi leen Madrid daan ñetti bal si benn kii di defender xam ne kii di footballer boo xam ne moom Atletico Madrid la mooy football ñu xam ko si parti moom nag nekk na ndaw loo xam ne nag ah, mu ngi def ay jéegoom ah, si lii di ah, team boo xam ne Diego Simeone moo leen amee te nag bokk na si sax si Europa League final bi moom tam bokk na si ñoo xam ne jóge na si bench bi mu ñëw mu play moom nag dugalal na Ghana ay góol gannaaw bi Ghana doon am ay test match ñëw Japan ak lii di Iceland sala nag moom moom moo gagné woon lii di moom moo gënoon a dugal góol si Premier League bi comme dugal na fanweeri góol ak ñaar ñaar te nag euh, Mané moom euh, dugal na euh, fukki góol ci Champions League final bi Champions League bi biñ doon jonganteel pour dem ci final bi. bokk ba tey si tàggat yaram ki yore woon lépp loo xamante ne rek dafa jëm ci wàllu gestu seet ndax. ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy def waaye tàggat yaram bi nag ñoom eh, nekkul di jëfandikoo ay maanaam mbir yoo xam ne da leen di yokk kàttan ki nga xamante ne nii moom mooy Jack Robertson moom daal wax na ne ñi nga xamante ne mooy WADA mooy kuréel gi yore wàllu boobu la daal ñoom dañ nekk di or nag ñi nga xamante ne eh, moom mooy ndaw yi def tàggat yaram te ñoom nekkul di jëfandikoo li ni mel. kii di Robertson koo xamante ne nii moo jàppoon kii di Lance Armstrong si euh, si jëfandikoo drogue bu mooy dawal bicycle ba ñu teg ko ay daan yu métti wax na ne nag euh, ñii di WADA di euh, World Athletics Doping Association ñu def nii pour baalal Roche leen si sports bi nekk na loo xamante ne euh, jaarut benn yoon ba tax na athlètes yoo xamante ne nii ñoom amuñ toon benn positif test seen yaram bi loolu jaar yoon su naree delloo dëkk boo xamante ne dañ leen jàppoon si ay sàcc waada nag ñoom nag daxalu nañ wax yi nan na ñoom euh, def nañ seen kéemtalaay kàttan pour gis ne lépp loo xamante ne nii mu ngi dem si wàllum drogue ak sports bi euh, buñ bokk benn yoon mu ne nag lii nag soo gisee kii di ko wax mu ne rek loolu ay wax la rek pour saboter leen ñoom seen liggéey waaye ñoom wadda si daan waxoon nañ ne dinañ def lépp luñ mun pour gis ne sax dinañ appoint lii di independent president ak vice president loolu yëpp du ko waral mooy bugg nañ gis ne ñooñu seen liggéey dina nekk si wàllum euh, seet athlète sii nii euh, ndax jëfandikooñ drog balaa ñuy dem si seen récit yi pour daaxalu lii di dopine maanaam mooy athlète yoo xamante ne dañoo laal ay affaire yu leen di mandiloo balaa ñuy daw ndax duñ mën a sonna waaye nag kii di robertson moom wax na ne lii jaarut yoon ak athlète yoo xamante ne ñi ngay def seen kéemtalaay kaataan di jël seen doole njuus eh, lii di bagage yi yoo xamante ne ni daf leen a yokkal kàttan mu ne nag Rochia seen delloo boo xamante ne ni delloo nañ lañ foofu noonu jaarut yoon ci benn boor. buñ bàyyi ci loolu ngeen taaxirul ak ñun tuuti léegi léegi rek ñu delluwaat ak yéen nag ci xibaari bitim réew. your smile. Take it with you, wherever you go. Wear it. Share it. To welcome old friends or meet new ones. Brussels Airlines, we go the extra smile. kaay ñu jokkoo ci social media bi ngeen wécceek ñun seeni xalaat ci Facebook PTV Gambia Instagram PTV Gambia Twitter PTV Gambia YouTube PTV Gambia mën ngeen a download app bi jaaree ko ci Google Play Store am ko ci seeni mobile PTV ñooy ceeñeeri Gambia. ko defee ñu andi lenn xibaar yi nekk ci euh, bitim réew euh, dinañ ko tàmbalee ci réewi Amérique ki nga xamante ne daal moom mooy Donald Trump daal dina dem euh, ci tund Californie ngir saytu fa nag safara boo xamante ne nii daal am na ay loraange yu bari lim jural waa tund woowule lu toll nag si juróom-ñaari fukk ak juróom-benn doomi aadama yoo xamante ne daal jàpp nañ ne ñàkk nañ fa seeni bakkan lu ëpp junne ak ñaari téeméeri nit jamono bi ah, wax nañ ne ah, gisuñ leen waaye nag ah, xibaar yi yuy génn wax nañ ne de li lim bi sa de mun naa ëpp lii bi mu doon wax si dëkk bi ñoo wax Paradise Mr Trump moom daal wax na ne ah, lii nekk na mbir boo xam ne mbir bu ñaaw la te nag ah, dafa daw yaram sax pour xool lii nii waaye nag wax na ne ah, lii moo xam ne ne mooy wàllum forest bi niñ koy tiye daal dañ ci war a liggéey lu baax ndik lii moom moo war a lii moon a xew waaye nag mu ne dañ war a jóg ñu gis ne ñu liggéey ñu boole si ñoo xam ne nag loolu lañ ñoo leen war a jàppale pour ñu def liggéey bi moom daal wax na ne moom Donald Trump ne lii mbir la boo xam ne nag ñeem xew mu ne euh, su jamono bi soo seetee moom daal li mu bëgg rek mooy euh, lii euh, dafa uppa daal gannaaw lii di safara bi campfire bi am na ñi di faykati safara yi ñu ngi jànkuwanteel place yu bari nag si jamono bi ñu ngi jéem pour rey safara si place yu bari bokk na ci sax fi ñu ooyee Woolsey Woolsey nag mu si Los Angeles foo xam ne nag lu toll si ñetti nit ñàkk nañ fa seeni bakkan waaye nag wax nañ ne soo seetee nit ñi sax commencé nañ di fa feebar waral rek mooy ah, ngelaw loo xam ne ñu ngi ko nekk si jamono bi ah, ngelaw li ah, moo leen jox feebar te nag mbootaay bi saytu wàllu ngelaw ci àdduna bi ñoom daal wax nañ ne si jamono bi California ñoom ñoo gën a bonle lii di ngelaw boo xam ne rek ni ñaa ngi koy dunda jërë jëf si seen seetaan fii ci Paradise TV ñu leen a ñaanal guddeeg jàmm